mais àndoon ak taxawu Sénégal. Mhm. compagnonnage bi dafay continuer wala am na perspective politique boo am. non on est toujours dans dans la dynamique de taxawu Sénégal toujours dans le cadre là les gens sont en train de truquer mais il faut nécessairement qu'il y ait une reconfiguration. politique foofu voilà foofu lay waxee. reconfiguration politique moom bu amee il faut que nit ñi ku si nekk nga xam ban orientation ngay jël. ak ban idée nouvelle ngay indi. Mhm. ak naka nga moo ëpp solo si kër àdduna mais jusqu'à on partage sur certains aspects donc pour xam fan la ñu jëm parce que lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ay élection day am. Mhm. lu mu yàgg yàgg yàgg reconfiguration politique day am wax la ko sànq fii Yewwi éclaté na Benno Bokk Yaakaar éclaté na. Amadou Ba mu ngi repositionné wu. Mhm. est-ce que ñooñu dañuy. defar PDS même mi ngi éclaté parce que ñenn ñi ils avec Karim d'autres disent que donc il faut nécessairement recomposition politique euh, euh, di amaat recomposition politique boobu di am. kan ak kan la naka la fan la kañ la c'est-à-dire que nit ñi ñu ngi seen ay laboratoire aussi di analyser di teg ay stratégie pour voir comment mettre en place quelque chose pour sauver ce pays là. fan lañ leen mën a mën a féetale fi mu nekk nii yéen euh, waa taxawu Sénégal mooy tuddee noonu parce que euh, dangeen ngeen nekkoon opposition euh, boo xam ne xëy na ak ñi fi nekk tey à un moment donné neexatul woon. Mm-hmm. donc yéen bokk vous n'avez rien à voir avec waa Benno Bokk Yaakaar et autres mm-hmm. loolu c'est clair mm-hmm. mais ñi fi nekk aussi diggante bi neexagul moo tax bëgg a euh, ban ban ban taxawaay ngeen ngeen di am jamono ji waaw mais loolu laay wax nii cest ñu am mooy taxawaayu soldat buy taxaw di surveiller ah, ok moo ëpp solo su fekkee ne dañoo dévier yoon nga redresser yoon bi baar bi ne leen non fii la ñu war a jaar mm-hmm. parce que nit lu gën a bon ci mooy dañuy opposé wu si ay nit kii neex na maag kii neexu maag kii d'accord naa ak moom alors que c'est pas ça le plus important le que idées yi muy développer théorie yi muy développer am na njëriñ pour réew mi wala amul njëriñ pour réew mi c'est-à-dire que ku mu ci mën a doon xam nga wax naa la ko fii sa plateau benn jour mm-hmm. nee naa la même Khalifa Sall bu ñu ko faloon mu def lu mu war a def je serai le premier mm-hmm. à à à wax naa la ko fii sa plateau parce que loolu laa gëm mm-hmm. gëwuma leneen y a Sénégal qui compte pour moi y a que les pour moi et eh, du taf du ma du ma du ma duma duma du ma ak ay sénégalais du ma fowee suma xel si ay sénégalais li mën a nekk laa leen di wax li mënta nekk du